nit parce que da nga am contrat à durée déterminée da nga war a ne muut nangu lu nekk waroo am yéene mais servir tes collègues dégg nañ lu nekk depuis plusieurs heures Mati muusul ma Mati def na erreur Mati dafa waroon xaar ba am CDI pour dugg ci syndicat mais pour nekk délégué mais il faut féliciter Mati Sénégal dafa a ay dizaines de Mati ay milliers de Mati ay millions de Mati parce que la situation des travailleurs a commencé par la situation des travailleurs de la presse li la situation des femmes améliorer amélioré j'ai interpellé le gouvernement il y a un gouvernement du Sénégal dès que vous bu un prématuré manam mu wasin ci période bi nga xamné c'est avant accouchement bu wasinee prématuré bu am 7 mois ñak na la période avant accouchement normal ci congé de maternité ndax lan mais partie bobu dañ ko wara a wara ñu ko supprimer parce que déjà jigéen bu wasinee doom bu normal mais yoré doom dafa diis rawatina nga yoré prématuré ak topoto prématuré nu mu waré ñu ne ñàkk nga cette partie là parce que da nga accoucher avant période bi nga waroon dem congé de maternité donc on a besoin de femmes dans les entreprises on a besoin de femmes yuy défendre ak ak yelleefu liggéeykat yépp ci biir ak ak yelleefu liggéeykat yu yépp ak ak yelleefu jigéen donc Mati, elle doit être encouragée buñ ko félicité wul sargal ko takkal ko médaille waruñu wax ne dafa def erreur elle n'a fait aucune erreur les travailleurs qui ont CDD, ils ont le droit d'être représentés. Et les travailleurs qui ont des CDD, ils leen gën représenter représentés. des travailleurs CDD comme nous Wow. donc elle est à féliciter et dit, nous te félicitons nous sommes fiers de toi nous sommes fiers de constater qu'au Sénégal il y a des femmes comme Yao et Jigen, yu ay jigéen yuy défendre les intérêts de tous les travailleurs yemul rek ci nekk délégué elle est la coordonnatrice de tous les délégués du train express régional di mooy xam nañ ne délégués yi duñu yam rek ci xeex ay prime de nourriture dinañ xeex leneen xam nañ ne ni suñu maam tirailleurs yi doon wax ñun ñi xeexal pour France guerre mondiale di nit yu ñuul

xaajuñu ba koy jege ñoom est-ce que amuñu benn wala ñaar wala ñetti prime liggéeykat tubaab yi nekk SNCF am nañ dix prime ñoom xam nañ ne ñii duñu yem ci xeex la suppression de la prime de nourriture dinañ dem ba ne eh, suñu maam nit yu ñuul yu ñu boom caaro yi 44 ndax ñu respecter seen droit ndax ñu yemale leen ak seeni mbokk tubaab yi xeex guerre mondiale ñun nit yu ñuul yiy liggéey ci biir terre bi ci terre ñun seeni sët lañu et que donc dañuy continuer xeex pour ni ñuy respecter liggéeykatu SNCF bu weex tàll ni tubaab noonu la ñu war a respecter liggéeykatu euh, SNCF bu ñuul ni doomu Afrique loolu rek la décapiter le collège des délégués commencé ko ci moom donc ça veut dire que tey jii nii boo nekkee délégué aussi facilement ñu sànni comme ça nga nekk jigéen rawatina jigéen bu wërul 5 mois de grossesse rawatina tout say chef nee nañ yow liggéeykat gënu la rax si Dolly, ay chef un ay ayubés ci ginnaaw ne Mati est-ce que tu veux continuer waat ak SETER mu ne leen man liggéey rek laa bëgg donc ça veut dire que ces supérieurs soxla nañ ko def nañ ko sax la proposition pour que mu nangu contrat bi bu jeexee ñu reconduire ko li xew ci diggante bi mooy tubaab yi tubaab yi nekk SETER di dundee SETER li ëpp ci xaalisu TER bi ñoom ñoo koy dundee ci ay payoor yoo xam ne ci ay indemnité yoo xam ne ci ay prime yoo xam ne rong ñu ñun sénégalais yiy jëfandikoo teer bi di siin ñoom seen cere ñoom tubaab yi nekk ci bopp terre bi yi nekk ci bopp SETER ñu xam ne ñii duñu toog seetaan loolu ñoom lañu ñu bëgg a galgal li ko dal nag dal na ñeneen avant moom ay góor ak ay jigéen mais lii ñu ne mënatul continuer loolu lañu bañ mu am lii ñuy def Mati Ñing mu ngi am ay fan ginnaaw bi ñu génnee ci weeru mars bés yëpp nag bésu jigéen la journée des femmes trois cent soixante cinq jours sur trois cent soixante cinq la waaye weeru mars ci lañ leen gën a fullaal gën a gën a faydal leen tey mooy le onze ah tey di la 11 avril fukki fan ak benn ginnaaw weeru mars nga ñuy toroxal jigéen jigéen bu wërul et donte wërul muy def liggéeyam consciencieusement toutes les femmes sénégalaises sont interpellées toutes les femmes syndicalistes sont interpellées toutes les femmes l'association des femmes juristes ce n'est pas un problème de droit ça ce n'est pas seulement un problème de que dit en fait le code du travail sur après deux contrats à durée en fait déterminée. Ça va plus loin que ça. rawatina Mune, le thème de la journée internationale des femmes du mars 2023 c'est pour un monde digital inclusif innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Terre, nekk lu Tu ci l'innovation Tu vois technologie journée internationale des femmes bi 2023 mu pour un monde digital inclusif innovation et technologie pour l'égalité des sexes kon li warona am fu nekk fudul ci terre bi muy lu bees muy technologie bu bees muy innovation bu bees ay jigen am fit am courage ñu bàyyi loolu yeneen contrat ñii dañ leen bàyyiloo yenen contrat ñu ñëw liggéey ci terre bi bi ñu ñëwee ci terre bi lañ leen ne

ci wetu suñu sœur Mati Ñing matafal Fall ngir taxawuko parce que li du du donc euh, li mo taxone ñu alerter li mo tax ñu ne tey mënuñu euh, pour dénoncer li nga xamné mom am terre mo am ci bi commencé wuñ ko ci te ko continuer du sax dina ñëw ci dernier développement bi Aliou Gérard Sànq bi mu leen di wax ah am nañu retard ne leen am na yeneen information yu bees waaw ci suba si am na yeneen information yu bees moom dina ci dellu si donc lii mooy suñu tànk fii di interpeller les centrales syndicales di interpeller ñii di xeex ak ak yelef dañoo nee bu ngaay neexee mexee tax bu ngaay neexee mexee tax bu terre nexé tax bu nexé tax bu yi di ci bi tax donc bu ngaay nexé mexé tax mais mënuñu seetaan ñu koy toroxal ñun nous sommes des compatriotes de Matining train express régional ah non, non, non. Violation expresse des droits de travailleurs, mon femme. Très Train express régional. Piétinement des droits de la femme express mon am Respecter les droits de la femme, c'est pas d'utiliser les femmes comme des machins, comme des objets.

aux travailleurs de la CETER en général et à Mme Fall Matining en particulier, assistante de direction à la CETER, qui va terminer un deuxième contrat à durée déterminée à la CETER, l'entreprise qui gère le TER, le train express régional. Après un premier contrat à durée déterminée de six mois, elle va terminer un deuxième contrat à durée déterminée de 18 mois, ce qui fera deux ans. Deux ans de bons et loyaux services. Que cette brave dame, Madame Fall, que notre brave sœur, Matining, que cette brave assistante de direction à la 7R, qui de surcroît prenait une partie de son temps libre pour défendre ses collègues du terre, parce que c'est ça être délégué du personnel. C'est-à-dire qu'elle aurait pu faire métro, boulot, dodo. Juste ça. Métro, boulot, dodo et course. Mais en plus de faire métro, boulot, dodo et course, elle a dit, je vais défendre les intérêts de tous les travailleurs du terre. Cette femme est à saluer et à féliciter et à encourager et à décorer et à porter un exemple à toutes les femmes de ce pays et de ce continent.